président pour l'unité et la mise en place d'une grande coalition républicaine gars bi nga xamee ne def nañ seen ab réunion président Macky Sall mi fi nekkoon démb dalee woo appel vidéo waaye bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ñoom ñu ci bëri ci ay jooy la nekkee woon jooyu naqar ak tiis la ci liñ leen di soudre wala jooyu mbégte ba ñu gisaatee Macky Sall wala boog reddition des comptes bi ñuy tudd ba ba mooy waaj a def effet loolu yëpp mën a am tuuti élégance génnee loxoom ci lépp loo xam ne leer na ko ni bu ñu ko ci tuddee mën nañ ko cee xeeb en tant que ex président waaye comme niñ ko daan waxee suñu ay jàngat jamono bi mu fiy nekk président waa jilee amul élégance xamul élégance àndul itam ak koo xam ne yooyu la jikko lay doxee moom ma ci sàll benn yitte la am jamono ji mooy xool naka lay defa ba dajalewaate républicain yi ngir opposé wu ci kanamu Bassirou Diomaye Faye président ak PM Ousmane Sonko lu ni mel nag sa peine perdue ndax même bu dul woon na ñaar ñilee sénégalais yi ñoo suur Macky Sall ak nguuram ñaawteef yu bëri yi nga xam ne defoon nañ ko ci réew mi bu ñu ko doon lim duñ fi jóge boole kooku bàyyil ñu fi réew mu métti lool gis nañu xibaar yi nga xam ne FMI fësal nañu ko waaye nag ci juróom benn weer kenn mënu ci jubbanti am réew moo xam ne ñañu ko dénkoon dañ koo dëggatee salfaañe ko discours bu président Bassirou Diomaye Faye bés ba muy tas ci firnde dundee te nee na lépp dina leer te askan wi itam dinañ ci am ay xibaar yu wér te wóor naka noonee sortie du territoire mel na ni jamono ji te na bu baax baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguurab Macky Sall googee ndax dafa mel ni daa am aw liste boo xam ne ñoom seeni tur ca la ñu nekk ba mënuñoo dépasser aéroport yeeg port yi ak fépp foo xam ne mën nañu faa jaar ngir génn réew mi lu ni mel moom la ñu Dakar Actu dal xibaar ñu ne interdiction de sortie du territoire de deux cents personnes dont des anciens ministres des directeurs et moom la gaa yëpp coow mel na ni jege na ñaari téeméeri nita yoo xam ne ña ca biir am ci ay anciens ministres ay directeurs ak ay hommes d'affaires ñoom ñu ne depuis quelques semaines plusieurs personnalités désirant quitter le pays ont fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire bëri ci ay nit ñoo xam ne ay personnalités lañ ci réew mi ay kilifa lañ bëggoon a daal di voyager waaye dañ leen koo tere selon des informations de Dakar Actu il y aurait une liste de plus de 200 personnes aux aéroports, ports et frontières, dont des anciens ministres de l'ex-régime, des directeurs de l'administration générale et de l'équipement d'âge, des directeurs de société, des hommes d'affaires, etc. waa Dakaractu ne ñoom ci xibaar yi nga xam ne am nañu ko kon dafa mel ni am na aw liste boo xam ne war na ñaari téeméeri nit ñoo xam ne dañ leen tere ñu génn réew mi te liste boobu déposé nañu ko ci aéroport yi ci port yi ak fépp ci frontières yi mën a tax ñoom ñu mën a génn réew mi ma yenn ministre yoo xam ne dañoo nekkoon ci régime bu fi jóge maanaam bu Macky Sall mu am seen biir ay dage boole kook ay directeur de société ak ñoo xam ni mën nañ leen tuddee ay homme d'affaires tout ce beau monde serait sur le coup d'une interdiction de sortie du territoire pour rappel les nouvelles autorités ont décidé de mettre en œuvre très prochainement une nouvelle politique de réduction des comptes le chef de l'État en a fait état lors de son adresse à la nation président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wax na ko yàggul ba muy yanoo ak askanu Sénégal ñi nga xam ne ñëpp ci régime bi fi jóge la ñu bokk ñoom ñëpp dañ tere ngeen ñu génn réew mi loolu yëpp dara waralu ko lu dul reddition des comptes maanaam caytu gi nga xam ne def nañu ko ci alalu réew mi naka la ñu ko yoree woon te ñoom ñi ñu ko dénkoon war ñu ci mën a rendre compte leeral lépp comme rek ni ko gaay di waxee ku guuxoon gox ku ci laaleewul ak leen ne gaay yi ñi ngi ci seen kaw jarul nag ñuy woote wàllu soxlawul itam ñuy woo Macky Sall ndax jàpp nañu ne moom moomee mu leen ëppi problème bu juumoon ba teg tànkam ci réewum Sénégal xam na bu baax a baax li ko fiy xaar weesoo kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu réew mi askan wi ci boppam teg bët Macky sàll moo tee ñu wan ko ni ñu ko meree boole kook laaj ko suñu ay koppar yi ñu ko denkoon ci diirub fukki at ak ñaar naka la ko gérer fu mu ko dugal ak lan moo waral ba tey jilee jafe-jafe yi nekk ci réew mi ba FMI ak yeneen i banqaas dañu jéem a ñàkkal fayda mais heureusement ba alternance am na ci réew mi te ñaar ñi nekk ci bopp bi kafuñu réewuñu ci li nga xam ne mooy avenir bu sénégalais yi kon nag rédition des comptes lu ma dul ñàkk ci réewum Sénégal la lépp nañ ko teg yoon comme niñ ko tàmbalee boobu ba tey bu a wàcc di may gaay a jaaree ngir mën a victimiser wu kenn du ko fi defee en tout cas ñun askan wi xam nañu bu baax a baax porte bi nga xam ne mbir mi am na ko te nag bu lépp sottee ci ñun lay dellu siwaat ndax xam nañu ne ñi fi toog tey jilee ñu def reddition des comptes nangu suñuy koppar ci ñi ko jëloona ba noppi di ko dugalaat seeni poche au contraire dinañ ko def ci yoo xam ne askan wi dinañ ci gis seen bopp yëg ne koppar ga ñu jëloon na dellu siwaat na ci ñooma te loolee mën naa nekk suñu Sénégal gile dafay soppeeku ndax ñi ñu ko dénk dogu nañ ci te ñun itam askan wi fas yéene nañu leen accompagner ngir ndam lu rëy ñu mën ko am beneen mbir mi nga xam ne mënul ñàkk ñu boros ko saay suñu def benn jàngata mooy li ñeel élection palum député yi nga xam ne moom la ñuy waajal élection yooyu dina nekk lu am njëriñ ci askanu Sénégal ndax dinañ nar a am ay député yu yees ñoo xam ne dañ utel lool ak ñi nekkoon ci pencum ndawi ñu teg leen fa ngir ñu saytul ñu lépp loo xam ni président Diomaye ak gouvernement am ñi ngi koy def bu ko defee lépp lu ñuy teg ci ay jéego rek dañ ciy sóoraale askan wi askan woowu nag mooy dem bésub 17 novembre 2024 ca mbañ gàcce ya ngir tànn ña nga xam ne ñoom lay yebal ci pencum ndawi réew moomee tànneef boobule duñu jug ci di ko wax dafa war a doon loo xam ne day tegu ci yoon tegu itam ci choix bu baax ndax ñañu fay yóbbu waruñu doon ñoo xam ne buñ fa duggee yëkkati kàddu nga rus baa buñ jëfee nga xeeb leen lool la mujjee regretté sa carte bi nga leen sànni loon am na loo xam ne nag ñun askan wi am nañ ci maturité bu baax a baax mooy naka la ñuy comprendre politiciens yi ñëw di taxaw ci suñu kanam di yëkkati kàddu ak promesse yi nga xam ni dañuy yàgg di ñu ko defal la lu ni mel amatu fi ndax politique politicienne moo jeex ci réewum Sénégal noonee lañ ko lijjante ak kaawu Macky Sall ak i nitam ñoom ñooñu itam dinañ takkuwaata defaruwaata ngir ñëw janoo ak askan wi laaj leen majorité ci assemblée national ngir mën a bloquer régime bi fi nekk action yëpp yi nga xam ne dinañ ko bëgg a teg foofee ci pencum ndawi réew ma loolee moo tax doole boobu képp moo des ngir ñu jox ko président yi ba nga xam ne moom itam du amati benn lay ci bañ a liggéey gaa mi ngi def ay jéego yu kawe kawe waaye ña doon xañ mu mottali ko mooy député yi nga xam ne ñoo nekkoon ci assemblée doon fa majorité tey dissoudre nañu leen kon ñun askan wi nañu ko jox boobule doole may ko mu am majorité ci biir assemblée ba ñu xool liggéeyam fu mu jëma naka la koy doxalee fan lay mujjee ndax li ñuy xaar ci moom moom président dina ko matal loolu yëpp pour mu am faw rek ñun askan wi itam ñu bay ci suñu waar bay suñu waar moo ñu war ñun askanu Sénégal moo waral ñu war a jàppale président Bassirou Diomaye Diakhar fay ngir mu am majorité ci assemblée nationale boole kook ay député yoo xam ne dañuy am am xam ci li ñuy def mën-mën ak capacité wu di jàmbar bépp projet de loi bu ñu leen fa indil Sénégal bi ñu bëgg ñun ñëpp ñooy ànd booloo daal di koy tabax te nag bu ñu fàtte na ñun askan wi dañ ci am part de responsabilité ndax ñu ànd booloo bésub 24 mars teel a xëy xëdd jubali ca bureau de vote ya fees fa dell voté massivement jox président Bassirou Diomaye Faye 54,28 pour cent ci suñu ay suffrage mu jàll d'office doon président au premier tour kon ñun ñooñu dajaloo woon booloo woon def benn say ngir sampi li fi nekkoon samp suñu projet nañu gën a doguwaat gën a takkuwaat jublu ci xool naka la ñuy def ba président Diomaye mili ñu mën koo jàppale moom ak son PM Ousmane Sonko ak ñëpp ñi nga xam ni seen ay collaborateur lañ. AGT News.